waaw jërëjëf Cheikh Bamba ñu ngi nuyu mbooleem ñi nga xamante ne ñu ñooy seetaan euh, télévision bi di Dakaractu di am mbégte loolu ci ñëw gi nga xam ne ñëw ngeen fekk ñu fii ko daan baax at mu jot màggal bu jot ci bis waxtu wi ngir ñu waxtaan ci ay kàddu yu gàtt ci lu jëm ci màggal gi ak lu jëm ci actualité bi bi ngeen ñëw nag fekk ngeen ma toog sama xarit sama frère sama doomi day Cheikh Moustapha Diop ministre Moustapha Diop ñu ñëwoon seet si ma euh, ngeen tombe ci muy mbégte ci man lool ñu fekk ànd ak cabinet mi yëpp Jibril Diallo mi ngi fi sëñ Cheikh Ba Amadou ngi fi ak Jolde Sëñ Fall ñoom ñëpp ñu ngi fi ñëw tubaarkàlla Ibrahima Diop. Cheikh Moustapha Diop mi moom euh, damay wax ne ne képp ku ma xam rek xam nga sama digganteek moom ndax moom dañoo ànd démb ndax moom boo ko seen waajuram laaj Basiru Diop ni meloon ci ay waay ay maam yëpp ci kër Sëñ Touba muy koo xamante ni bii euh, daa bokk ci kër gi ba noppi ndax ba ci desit sama waajur nga xam ne mooy Cheikh Abdoul Fatah doom la ko jàppe moo tax man ma gisee dama naan ko sama doom yi bàyyi nga muy koo xam ne li tubaab di xarim moom moom la moom la kon nag mbégte lool laa am ci mu ñëw fi waaye mbégte lool laa am bi nga ñëwee ngeen tombé ci fekk mu ñëw fi ñu ñu soog di waxtaan kon nag di di di di lool daal ci jataay bii nga xam ne fekkee ngeen ko yéen waa Dakaractu waaw dama ko koy euh, delloo ginnaaw bu ñu ñëwee euh, màggal si bis bi ah, muy bis bi nga xam ne yaakaar naa ne képp kuy mu mënoo am bis bu ko gën a bu ko gën a rëy ah, muy bisub euh, Cheikhul Khadim te ñun moom ku ñu xam-xam ne murit moom dañ sax te ci la ñuy dee ba faaw muy lu nekk suñu xol euh, ñëw nag tey ziare si suma xarit sama frère sama lépp euh, ñu bokk baay di sëriñ Abdou Abdou Fata di suñ lépp xam na suma ma sëriñ Abdou Fata teg ak fi ma teg moom mii sëriñ ji di nit ku baax di nit ku sawar sama mbir yàgg maa taxaw bu baax a baax a baax te yéene ma jàmm kon vraiment bis su mel ni su amee day rafet di bisu bisu maamam ñu ñëw jaar euh, ziare si ko sàkku ñaan ci moom ndax am nañ yaakaar ci ñaan bu baax a baax mu ñaanal ñu suñu borom euh, musal ñu te muccal ñu donc te it euh, jàppale président Macky Sall sàkkul ko ñaan mu ñaanal ko yàlla def jàmm ci réew mi ba nga xam ne yéen ji nga xam ne am na ko ci réew mi muy liggéey Sénégal te président nekk ci yoon wi teg ci ay jéego yu rëy rëy rëy yàlla may bàyyi koog sagoom yàggal ko fi mu mën a àggale liggéey bi kàttan lépp di njariñu Sénégal salaatul lazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani ala maahin ma al hassa wa safar